mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat euh, di leen gërëm bu baax ci 30 minutes euh, crono ci solution info TV di am mbégte teewaat bi ci ndimbalu suñu borom ak kàttanam di sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan ak euh, di ñu déglu di topp solution TV ak solution info TV di ñaan rek vingt 2024 dàq fuuf atum 2023 bi ñu génn mu doon at mu tiis ci chronique bi ñu weesu dellusiwaat nañ ci at mi ñu génn. léegi nag fi ñu jëm lañuy xool di nuyu El Hadji Modou Diouf Ablaye jàlloo abdu Top comme ni nga koy tàmm defee Sanjogu Soy bu euh, Assane Mesere Aïcha hmm, suka Kia Béti ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax ba ci fàllu ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte ci liggéey bi léegi ñi ñëw ci nag ci mbir moo xam ne tey jii dinañ ci sëgg mu doon loo xam ne histoire da koy retenir ñu ne Ousmane Sonko candidat la dossier ma nga ca conseil constitutionnel loolu lu yéemal ñu ne dossier ma nga ca conseil constitutionnel ñu ne conseil constitutionnel la ñuy xaar ndax Ousmane candidature am dina jàll wala du jàll jamono ji ñuy waajal loolu. ñu ne cour suprême sëgg na ci mbiri Mame Mbaye Niang mbiri Mame mooy benn ministre bu ñu dénkoon benn mbir bi ñu wax Prodac Prodac jàll li naan UGF di in di inspection générale des finances génnoon ab rapport wax ni dafa am ay labaj ci mbiri Prodac ñu tudd ci Mame tey bul fàtte ni inspection boobu sa ministère des finance la ne Amadou Ba moo jiitoon ministère des finances ab rapport génn fi ba ñëpp jot ci coow li bari loolu ñu dem ba bis Ousmane Sonko dugal làmmiñam ci loolu wax IGE diggante E ak F ñu dem àtte mbir mi juge Yaxam Keita wax ni kii di Ousmane Sonko daal teg nañ ko daan. waaye daan yu ñu ko teg maître Olivier Sur doon ab avocat tubaab bi doon jàppale Mame Mbaye Niang bi mu génnee ci bis boobu di alxamis dafa ne mbir moomu de jarul sax di topp ndaxte ci candidature Ousmane Sonko loolu mënu ci yàq dara candidature Ousmane Sonko loolu mënu ci yàq dara réew mi yëpp dal ñëpp tàccu jàpp ni yoon def na liggéeyam ñu gis ma jambal Diagne génn jiiñ yaa xam kayta Pastef la bokk sama benn xarit boo xam ne tribunal lay liggéey du ma tudd turam woo ma ni ginnaaw ba Mame Mbaye Niang jubilee ni moom li yoon atte neex na ko mu ni ma neexu leen te fii ngoon dinga dégg ni def nanu appel parce que li leen intéressé mooy waaj ji doon a doon ak boobaak léegi yàgg na de ki ma wax lii tribunal la ne balaa ngoon rek ñu ne Mame ay avocam dañuy dugal appel boo xoolee maître Olivier Sur mi am fulla am fayda nekk tubaab te xam lan mooy yoon moom boobu la génn ci dossier bi dem yoonam léegi nag dossier bi ñu koy topp en nappel patam patamee ko même ñi abokaawu usmaan wu Sonko yi délai sax bi waroon am pour dugal appel bi wala délai bi ñu waroon sax topp délai boobu toppuñu ko lépp dañ ko gaawantu ba tey jii nag ñu ne yoon daan usmaan Sonko. juróom-benni weer ak alal joo xam ne da koy xañ ngir mu bañ a bokk ci élection waaye buñ teewloo ku mel ni Maître Doudou Ndoye waxoon na ni kenn waxul 6 waaye plus de 6 mois lan wax te ci àtte bi kenn waxul plus de 6 mois kon tey lan la nii daw bay daanu ba tax tey dossier bi ginnaaw bi demee demee Ziguinchor ci Sabassy Faye ñun leen nan dugalaat Ousmane Sonko ñu dem ci ndakaaru gi ñun leen nan dugalaat Sonko ci loolu yëngal dossier bi yóbbu ko tey la 4 le gi nag àtt ci dossier boobu ci jamono jin naan benn candidat war nañu xool parrainage est-ce que jàll na am jàllu di Ousmane Sonko ñu ne suba lañ koy xool la 5 le ñu indi mbirim Mame Mbaye Niang bi mën a tee Ousmane Sonko dem. ci élection loolu lan lay wundu est-ce que loolu rafet na ci deru Sénégal ñu ne ab candidat nekk lider de l'opposition ëpp ci bayre ëpp ci solo moom la xale yi bëgg moom la ñu topp ñu ne baare nañ ko demul ci élection conseil constitutionnel waxu ko de ñu ne cour suprême moo àtte ci mbiri Prodac ñu ne lan la àtte ñu ne diffamation maanaam loolu di àddina ba àddina sosoo ba léegi ci àddina mooy baare nan candidat parce que diffamation lañ ko téye maanaam nguuru Sénégal sax warul nangu ñu àtte àtte bi tey wala buñ ko àttee ba ne Ousmane ko bokkatul mais suba lan la conseil constitutionnel war a wax kon tey bu nite woon te xam ëllëgu Sénégal xam na ñoom nag Sénégal ñoru leen seen bopp leen ñor ñoom seen bopp leen ñor mais bu xamoon ëllëgu Sénégal ak fi mu jëm bàyyi mbir mi conseil constitutionnel moo gën ñu koy àtte cour suprême parce que bu boobaa àddina bi yépp dinañ ibbi seen i bët xool ah. naka de waa ji téewun ko dara naka de mbir mam mbay ñaaw ak aji saar ak lépp leen rek moo ko taxoon a mooy te bokk ci élection li ci kanam nag rawul yi gët waaye nag pexe yi ñuy def depuis mars 2021 ba tey jii ñu koy def te jurul lenn lu dul ñu dem ba tey mun a wékku ci Mame Mbaye pour téye Sonko ci mbiri diffamation gin tudd Mame Mbaye ci mbiri Prodac te mbiri Prodac jeexagul ak li ci clé d'or euh, kii nu mu tudd clé d'or seen wax ak li ci Birahim Seck bind ak ñoom état bi ñoo génnee rapport bi tey jii ñu ne Ousmane Sonko mën nañ ko bloquer parce que foofu la man dama gëm ni mbir mi waruñu ko àtte tey wala buñ ko àttee warul xañ lenn Ousmane Sonko da ci war a am ndam léegi nag bu ci bu ko ci leneen fekkee xayrun loolu mu doonoon rek li ñuy ibbee pour ibbiwaat bopp yi parce que sénégalais danoo gaaw fàtte danoo gaaw fàtte léegi nag li jëm ci mbiri Ousmane Sonko ak candidature am ak dina bokk ak du bokk usmaan moom day bokk ci nii rek wala mu bokk ci nee li ñu faral di wax day bokk ci nii wala mu bokk ci nee dinaa ci dikk ci kanam ndax bu nee Cheikh Tidiane Dieye bokk na ñu ne Déthié Fall bokk na ñu ne Habib Sy bokk na waaye Habib Sy rek moo ci revendiqué Pastef ci kaw Habib Sy laa bëgg a digg moo fi revendiqué Pastef ni Pastef ñoo ko jox seeni parrainage yu député léegi moom candidat la waaye bis bu candidature son ko bokkee moom Habib Sy moom Habib Sy day rocceeku xam ne loolu mënoon nañ ko waxtaanee ci suuf mënoon nañ ko waxtaanee ci suuf te Habib Sy du ko wax ci kaw ndax Ousmane ñi mu yàgg dimbali ci politique bari nan de Habib Sy moo gore rek taxaw ni man Pastef ma ma investir bu Ousmane bokkee duma bokk léegi bu Ousmane bokkul Habib Sy bokk Habib Sy lan la déggoog Ousmane hmm? mais dégg koo wóolu. dénk koo wóolu di nga yàgg ak nit dama dégg des oiseaux de mauvais augure ñu commencé di manipuler dans la presse naan candidature Pastef bi di Habib Sy am na ñu ci àndul waxuñu dëgg c'est des manipulateurs xamul dama la c'est des manipulateurs est-ce que da nga dégg Guy Marius Sagna wax ci te Guy Marius Sagna bokkul Pastef de ñoom sax Pastef la nga mais bokkul Pastef ku la ni Pastef la bokk Guy Marius moomu ak ni sor tollu ci Ousmane Sonko pourtant Ousmane Sonko daf fi bàyyi waa Pastef yëpp investir ko député Guy Marius Sagna investir ko député loolu lan la pourtant ñoom Abdou saane doon ay mag yu baax yu am fayda yi am fulla mën politique yàgg ci Abdou Sané bokk na ci leaderu Pastef yu Ziguinchor di taxawu Ousmane Sonko fépp nekkoon fi vice président groupe parlementaire libéral moo toppoon ci Doudou Wade honorable député Abdou Sané pourtant ñu ko est-ce que da nga dégg Ziguinchor ku jug ni Guy Marius Sagna bokkul Pastef pourtant tànnoon nañ ko li tànn Guy Marius Sagna tànnoon Barthélemy Dias ci Ndakaaru tànnoon Ahmed Aïdara ca Géejawaay ñoo ñëpp duñ Pastef bu ma doon lim du jeex tànnoon Abba Mbaye ca Ndar loolu moo tànn Habib Sy te pourtant Habib Sy ba ñuy xëccoo maire ca Linguère mais El Malick moo demoon est-ce que Habib Sy da kaa xëccoog moom te pourtant Habib mi ngi politique rakkam di politique Omar Sy Omar Sy moo jiite li suppléant bu Yewwi le député Omar Sy rakk Habib mii la kon ñi naan Habib si lii ak lee li loolu du lu bees si Ousmane Sonko de mu xëy tànn ku mu wóolu léegi kay yow yaay dem ba ci biir nga dugal ay tànk bukki mais Ousmane Sonko moom projet dafa je pour man dafa weesu Pastef damaa jàpp ni day xool ki gën ci sénégalais te gën ci sénégalais yi rek mu tànn ko parce que Sénégal ko ñor parce que bu ko bopp boppam ñoroon du demee nii mos naa dégg Cheikh Bara wax ko mooy bu ko boppam ñoroon du tànn ab numéro de fekk jaxaay mu tëdd ca prison ba. kii Jomaay mu ni ko demal uti parrainage mun nga doon candidat du fekk seex Tidiane Dièye mu taxawu ko du fekk Abib mu taxawu ko kon mbir mi dafa jéggi jëmi Ousmane sonk maanaam mbir mi boo koy atte ci Ousmane Sonko wala nga koy atte ci politiciens yi njëkk ya comme i Sall wala nga koy atte comme Idrissa Seck wala nga koy atte comme Laye Wade wala Karim li ngay juum li ñor Ousmane Sonko leneen la léegi nag lan la déggoog Abib ak ci yan mbir lan sartoo parce que li Habib si wax démb di mandataire am li mu wax may bu ko neexoon bañ ko wax xamal lu tax ma ni la ñu ne lii mën na yëngal Pastef parce que am na ay patriotes yu dul ànd wax jooju yàgg nañ bëgg a tas Pastef ñoom ci ay wax parce que biñ fi tànnee Jomaay tànn fii El Malick tànn fii biram Souleye tànn fii Guy Marius Sagna tànn fii Abass ñoom ñu dem jëli seeni i fiisu parrainage Madiambal Diagne bi mu tànnee Diomaye dafa génn mu ne am na ñu ci àndul ma Madiambal Diagne ak ñeneen na Pastef ñoom Birame Souleye comme Birame Souleye waxul woon léegi mun na ñoom Birame Souleye ak ñi àndu ñu ci àndu ñu ci man pour manipuler parce que ne fekk fan sax di ngeen gis ni am na ñu àndul ci choix wu Diomaye da nga mës a dégg ku ji ngeen falaawu Diomaye waxuma ñi ci mbedd mi lambar lambari de mais ñi bokk Pastef te jox bopp Ousmane Sonko amul bi ñu tànnee Diomaye am na ñoo xam ne tey jii seen seen xel mun nañ wax ni prison la ne lu tax ñu koy tànn dégg nañ sax ay nit yu bokk ci nguur gi ay manipulateur ak ay journaliste taxaw naan ku nekk ci prison nan la mënee bokk élection te amul benn loi bu tee ki nekk ci prison bokk léegi nan la mënee battre campagne mais bu battrul campagne ñu battrul ko am ñu ko xeexal parce que ñi ko dem dugalal ko candidature am ñi ko utal parrainage ba mu am ko mais ñooñ mën nañ ko xeexal ba mu gagné élection le choix de Habib Sy choix bu la léegi nag lan moo indi allié wu Ousmane Sonko yi tey jii Ousmane mën leen a wóolu mën a wóolu ku mel ne Cheikh Tidiane Dièye mën a wóolu ku mel ne Habib Sy mais loolu dafa normal parce que Ousmane Sonko mars deux mille vingt et ba deux mille vingt dafa nekk ci ay xat-xat mbiri Adji tubaab dafa ne c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les meilleurs c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît les meilleurs maanaam bu mettee ci jafe-jafe ngay xam jàmbaar yi dëgg-dëgg waaye bu dee naqat doo leen xam Ousmane Sonko mbiri Adji ñu xat xatal ko mais pour dire la vérité mais benn Habib Sy bàyyi léppam. nekk ci md 2 nekk mag nekk kilifa jaar fu ne ci nguur ñoo taxaw usman Sonko ba tey jii bàyyeegu ko bi Ousmane Sonko duggee ci kaso bokk na ci ñi njëkk ñu ko seeti bi ñu dem ci xalif général des Mourides di ko seeti ak bi leen di jox tàndarma bi abi simi ana ñeneen ñi Ousmane tolloon na fi jamono xeexal ko jafe na de gars yi làqatu de boobu ay Antoine na fi ne ay Ismaïla Madior xamuñu ku def ak ku def ku deful jàpp rek tëj ràpp waxal Ousmane Sonko yombul woon mais Habib seetewoo devant jamono yooyu xalifa dafa daw mais ay Barth daw mais Habib si taxaw Cheikh Tidiane Dièye taxaw am na ñu nekkoon Pastef déggatoo leen woon m 2 bi ñu koy taxawal boobu mbiri Adji Sarr kenn xamu ci dara Ousmane moo def mu deful kenn xamu ci dara mais Cheikh Tidiane Dièye dafa ñëw créer M2D m boobu moo dem ci xalif général des Mourides. ñu wax ba Ousmane Sonko génn looloo tax man mdd 2 d musuma bëgg mu tas ay Aïda Mbodj ñoom ñëpp taxaw taxawu Ousmane moment boobu dafa metti loolu daal daf ci am moment yoo xam ne am na nit yoo dul fàtte Habib si taxaw ñu bari yi fàtte m avant yeewi M2D la woon ji nga ñi bokkoon m 2 leen amul ku ci war usmaan Sonko seetlu leen dellu leen ginnaaw ngeen di xool loolu dama ma bëgg yenn personnage su mel ne Cheikh Tidiane ay Habib Sy ñu respecté leen choix bi Ousmane def ci ñoom ak la leen déggoog Ousmane mais il ne faut pas ay nit taxaw bëgg leen a manipuler bëgg a manipuler les patriotes ndax leen Habib lii Habib lii mais Habib lii ci nguuru Abdoulaye Wade la nekkoon c'est vrai système bi la bokk def ci quarante ans mais Habib Sy da ko mës a dégg ci càmbay wala lu bon. non déggoo ko ci Habib Sy ci xibaar ji nga makki sàll mii bi ñu koy def premier ministre Ablaye Wade di ko tànn Ablaye Wade soo am du woon Macky Sall paraît-il Habib mii la woon na Ablaye Wade Habib Sy rek la gëmoon ndax yar gi tey gi dal gi mosoo ko dégg mbiri PDS mosoo ko dégg ci yu ñàkk fay def ji nga am na ñu ne Karim Wade moo tànn Macky Karim Wade moo tànn Macky Karim Wade moo tànn Macky am na ñu wax loolu te tey jii bu ko neexoon moom Habib mais nu dem ba Macky Sall Ablaye Wade jeexal mu ma fekk Macky foofu la gën a neexee mais malgré tout il reste dans nekkatul maire nekkatul député mais opposition bi dafa am un doyen dafa war am un doyen quelqu'un boo xam day taxaw kon loolu lu jar a bàyyi xel la. il ne faut pas rek ñu naan la Habib si ancien entité ah Sonko mii ñuy wax Isman tey bi mu demee deux mille dix-neuf amul dajewu fekk Abdoulaye Wade bi ko Abdoulaye Wade wooye fii ci benn hôtel je ne sais mais Sonko da ko fekki lan la waxante ak Abdoulaye Wade di nga loo seexlu doo ko soppi loo seexlu doo ko soppi mbiri Adji saar ci la Ousmane Sonko comprendre ni mbir mi du rek ay nit yu bees wala patriote la li mais il faut nga dugal ci ñeneen ñi mais mbiri Adji Sarr ci la dàmbooj feeñ te tey ji dàmbooj kenn moo ko ëpp taxawaay dàmbooj bokkul Pastef mais ci la Maimouna Bousso teew bokkul Pastef Cheikh Bara Ndiaye keneen ak keneen ak ñeneen parce que ci mbiri Adji Sarr la mbir mi gën a sëqee ci la gën a màggee parce que boobu manipulation bi bari na ay nit ñu am taxawaay parce que daf ci am ñoo xam ne da lay jox crédibilité nga toll benn jamono ñu gis benn Habib Sy nekk ci sa wet kenn xamewu ko ñàkk fay rek kenn xamewu ko lu bon kenn dé mus ko dégg kenn mus ko dégg dara ci réew mi loolu tax ñu naan Habib Sy Habib Sy loolu mu doonoon rek leeral bi ñuy def par rapport ak choix bi ñu def ci Habib Sy te Habib li mu wax leer na mooy waa Pastef Pastef defal nañu nit lu ne ci réew mi fal Barthélemy fal keneen fal keneen fal keneen xalifa mbiri Sonko yi ak m moo tax xalifa Sall génnaat mais xalifa Sall bi mu duggee kaso ba deux mille vingt kenn déggu ko ñoom ñëpp de leen naqoon ci ndox mi mais ma koy leen génnee Sonko leen génnee ñi ngalaat gi ñi mu def leen député ñi mu def leen ay maire kon ñi naan choix bi waa Pastef ànd te déggaguñu benn nitu Pastef bu génn wala un leader mën na wax moo xusmaa ñàpp boo xam ne ci internet bi la ne kenn xamu fu mu bokk man yooyu kenn du mu ci dugal nit bu bokkee ci parti dafay tekki dara loolu mu doon lu ñu war a bàyyi xel léegi nag li jëm ci élection yi ñaara mën a am Ousmane Sonko président wala mu doon un faiseur de président comme li ñuy wax roi ou faiseur de roi maanaam moom day falu wala mu falee rek loolu moom moo mën a ne kon yooyu ñu bàyyi ci xel parce que nag njëkkeewu ko tey njëkkeewu ko tey de fale bari na fi maire yoo xam ne moo leen fal bari na fi député yoo xam ne moo leen fal noonu tamit la koy defee ci candidat rek am na ci ñoo xam ne bu leen mayul loxo duñ jàll bu leen mayul loxo duñ jàll te nag foofu la toll parce que li gars yaakaaroon mooy day dugg ci kaso bi def ni comme yeneen gars yi defoon ne bokkuma ci élection yi ma am candidat mais la nature à horreur du vide nguur gi loolu leen bëggoon mooy Ousmane Sonko dugg kaso du du kenn du tànn kenn bi ñuy tas parteem ak yëpp di ko tëjee yëpp loolu lañ ci jublu woon sooru sóoruñu woon ni waa ji dina fi nekk ba heure bi wa ñu woon ni waa ji tamit am na seeni politique bi xam lu ko tegoon benn naatu xóona boo xam ne comme ni ko ma am Diallo xawoon a lii ci lii itam maanaam jàppe Ousmane Sonko ku ëppal ku amul sago koo xam day tël tël di dem mais li mu leen tegal nii équation la équation la fi ne nii kenn xamul waa jëm te ku mel ne Habib Sy damay dama dama ci dellu si waat mais Habib Sy day mën a tànn day mën a am patriote yi mais mën a am ci parti socialiste ay nit bu dem bu nekkoon candidat laa wax de mën a am parti socialiste ay nit mais ay nitu PDS sax mu mën ci ronqi ay nitu PDS mu mën ci ronqi nitu PDS yi mu mën ci ronqi parce que ba tey ji am na ay nit PDS am na ay nit feneen ak feneen parce que boo nekkee candidat pour nga rassembler day yomb tey jii Habib Sy dem seeti benn nitu PDS waxtaan ak moom pour mu jàppale ko moo gën a yomb Ousmane ko def ko kon c'est un intelligent et judicieux le choix de Habib Sy léegi nag bu Sonko nekkee candidat mu roccee ko mën naari naari loolu nag yeneen la est-ce que dina ko war est dina lii des fois xel mu rëy day xas xaj day tax a ñàkk wërsëg système bi du lépp bon am na ñu baax Pastef bi ñu créé Pastef africain xam na Pastef lii mais les patriotes africain la nga ko mujj a def ne Pape Demba no non non Diallo Diop dafa dugg ñoom Yacine Fall dañoo dugg ñoom Madiaye Mbodj dañoo dugg ak ñeneen ak ñeneen looloo tax Pastef ñu ko bëgg a yemale ci ña ko sosoon ña ko tàmbali woon non Pastef ëpp na loolu ëpp na loolu. wala fi nee na ku njaboot xat ku njaboot sakkanle te foofu lañ toll léegi nag ci sa biir njaboot danga nga ciy am workat loolu mooy njaboot même daanoo famille da nga ciy am ku baax da ci am ku bon da nga ciy am ku ëppal danga nga am mais pour man qualité yi ñoo ëpp ci Pastef Pastef am na quantité mais am na qualité foofu nag laay ñëwee ci dix ans au Pastef yi yenn ci presse bi naan neuf ans au Pastef bëgg ci génnee at mi parce que neen dañ ko dissoudre man dissolution Pastef boobu keneen la nga koy wax mais man du ma pour man Pastef tey la fi gën a ne man loolu laa gëm loolu nag sama gëm ngëm la kon dix ans laay wax ci biir dix ans yooyu ñu bëgg ñu présenter comme parti boo xam ne ay terroriste la parti boo xam ne violence la ñuy def parti boo xam ne ñoo tas réew mi parti boo xam ne ñoo tasaare réew mi mais tey bu ñuy wax tey tasaare réew mi mais diine ji ci Sénégal kan moo ko tas. wante dëkk presse bi kan moo ko tas. opposition Sénégal kan moo leen tasaare. ki waxoon ne dinaa fexe ba opposition bi dellu ci neen zéro. réduire leen à leur plus simple expression. réew mi ki ko tas waxagun ko Pastef tasul réew mi Pastef dafa dajale réew mi. parce que dafa amoon benn xeetu Sénégal parce que ñun politique bi da nga ko doon def affaire élite la ñëpp seexlu ko benn waay jóge fee le 4 janvier 2014 ba tey jii 10 ans ñu doon ay inspecteurs des impôts et domaines nekk ñoon ay nit yu sonn mais gisoon nañ ni réew mi ni muy doxee dafa jeng gisoon nañ ni mbir yi rang bi jubul. ñu ñëw taxaw doon ay ndaw gars yi ne ñii dinañ dem wala duñ dem ñoom ñu gëm ni dañuy dem nekk ay inspecteur des impôts et domaines ñi nekk ay inspecteur du trésor ñu xëy dàq Ousmane Sonko dàq ko impôts et domaines foog ni loolu moom moo koy tas parce que gars yi si seen ngëm-ngëm danoo jàpp ni leader bi bis boo ko reyee rek projet bi dee na waa ji ngoy fa mu ngoy ba xëy nekk député loolu sax sama xel day dem ci du son Sonko rek moo perte liggéey ci Pastef ah. sama xel day dem ci ñu bari ñoo xam ne bëgg mu tudd seen tur ñoo xam ne ci administration bi la nekkoon nekk ci finance nekk trésor ñoom Matar Sène mu dafa cité non yoo xam ne tey gëm bi ñu gëm Pastef moo tax ñu ñàkk seen liggéey te nekkoon ay cadre ci administration bu Sénégal gars yi balaa ñu dugg kaso ñu bari sonn nañ ci mais taxul ñu bàyyi projet bi gëm Ousmane rek nekk ci ba mu nekk député am taxawaay bi mu am ci assemblée nationale indi discours bu bees dem présidentielle deux mille vingt et li mu def gis nañu jël troisième yeneen élection yi tegul yëpp même bu bokkul moo koy gagné campagne législative ak locale mu battre campagne tey jii bu demee bay diiranteeg mbag mbagg nguur gi diiranteeg mbagg nguur gi ci assemblée nationale ci barke Ousmane. les grandes ville ñu gagné ko ci élection locale malgré administration bi jeng gin ak direction des élections mais teewul dañoo tenir tête mu gëm gëmloon ñi li meññee ci réew mi ak di saxee ci réew mi waa réew mi mën nañ ko jariñoo te nag tubaab yi di ronk suñu alal du yóbbu loolu dafa war a dakk jeex réew mi doomu réew a koy defal ni ko Guy Marius Sagna di waxee ñëpp topp ko ci ba tey fu mu ne fii la ñu ne ko foofu la ñu dajale mbooloo mu kenn dajalewul taal xel yi mosoo dégg Abdou Khadre Sanogo koroog maa ngi koy dégg mu naan ay manifestation yi fi amoon est-ce que nekkul ni looloo tax nguur gi di interdire da nga mës a dégg fu Pastef organiser lu ñu autorisé Kër Massar ak APES naa booy lim du jeex ñu pare ñu ne waa Pastef ñu ngay xeex wala rey na nit doo ko dégg musoo dëgg manifestation parce que bu nu organiser fitna mujj ci bu nu paree kay dina raxas ba mu set te doo fa dégg ku nu saaga wala ku nu sàcc doo fa dégg ku nu xas wala ku nu xaxar kooku mooy Pastef le seul parti au Sénégal boo xam ne bu nu dajee ñoom ñoom drapeau Sénégal lañuy ñuy fësal Sénégal la ñuy fësal hymne national Sénégal la ñuy dóor jël sax ñaañi bañ na indiwaat teg. parti boobu mooy Pastef loolu tax Pastef bi ñu bëgg a présenté man xaw ma boobu mooy ay rebelle ay terroriste ay lii ay lee entreprise terroriste ñu bari dee nañ ci nag ñu bari dugg nañ ci kaso ñu bari ñàkk nañ seen alal ñu bari gàddaay nañ génn réew mi mais révolution boo mës gis ci àddina dafa am ñi koy xeex du ñoom seen bopp moo leen ñor ñu bari doonoo jàpp ni Pastef seen bopp leen ñor mooy li Ousmane waxoon ñi ma jàkkaarlool cinq ans moo leen ñor ci réew mi ñoom seen ambition cinq ans la waaye man sama vision cinquante ans la kon ñi ngi su sóoraale les générations futures loolu daal bi nu tasee parti bi tëj ñépp ñi gàddaay dem parti bi gën fee ne gars yi ne neen ex Pastef moo gën a dox Pastef loolu nag mooy ngëm-ngëm loolu nag mooy pas-pas loolooy taxawaay loolu mooy taxawaay bi Pastef am ci dix ans yi loolu tax ñun Pastef bi ñu bëgg a jaay gis ñu boobu ñun bu ñu gisoon leneen wax ko tànk nag wax naa ko ku jaboot le jabootle sakkanle ku le xat si sa biir njaboot moom mii ñun suñ biir kër yi di APR di PDS di feneen ak feneen réew mi lu bees amu fi ñu naan non fitna gu bees gi politique bu bees bi lu bees amu fi xamul fi am mooy ay nit ñu bees ñu buggul nangu dëgg ay nit ñu bees ñu buggul dégg dëgg ay nit ñoo xam ne tey jii ci tappale ak caaxaan ci 60 ans yi système bu bon bi ci leenu dund ba am li ñu am te bëgguñu ko ñàkk mu jaral leen lu ne ko di bay baabu di dundee la majorité des sénégalais tey jii ñàkk ñii di mbëkk gaal loo di dem ñii di bëgg a dee ak xiif ñii nekk ci ay tolof tolof réew mi doxul te ñun ñu toog ci or ba pare ñi ñu wërloo ay or am lépp ba pare ñàkk. am waa ju ñëw nag gëmloo na ni mais li ngeen ñàkk ni waroo leen ko ñàkk da ngeen cee war a taxaw ba jot ci kon tey jii mu doon un hommage boo xam ne dañ koy rendre passif tey jii bu ne Ousmane Sonko dalay fàttali benn du Dia pourquoi te tey jii ñu ngi rëccu Dia naan tey bu fi Dia nekkoon yàlla bu nu rëccoon noonu usmaan Sonko. yàlla bu ñu rëccoon noonu benn minorité ñu fi ne rek di ñu imposer yoo xam ne ñun tey ji suñuy bàyyi dañ ko dund ba xëy dee ñun war ñu war ñu ko dundloo léegi ñu war a dem ñun bàyyi fi suñuy doom ñu dund loolu ñun dunu politique dunu Pastef dunu militan mais nag ki gën ci réew mi moo ñu gënal waaw kon mi ngi noonu di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp di gërëm ñëpp tey rek ñu doon dellusiwaat ci actualité bi waaw euh, bëggoon nañ ci gën a wax sax mais comme danoo nekk ci tànn candidat yi conseil constitutionnel mi ngi fa euh, am na loo xam doo ci jiitu conseil constitutionnel léegi nag bu ñu demee ba mbiri leer day tax nga gën a mën a analyser candidat ak ko ne ak fu mu jaar ak fiche beeg élection yi ñu jëm ak yooyu dinañ ci dikk bu baax a baax di gërëm mu du Modou Abdou Top Ablaye Diallo di jégalu ñëpp bu dee njumte am na ci di baalu ak ñëpp di ñaanal ñëpp jàmb beneen alxamis incha allah.